kàddu gi lan la. waaw euh, comme ni ñu ko defee woon ginnaaw bi ñu sante yàlla ñu ngi demoon kër Daouda Cissé fan yi passé lépp dañoo jug pour xale yi takk pour defar Fandène takk pour defar Fandène googu nag dañ ci ànd ak le ministre Augustin Tine maire Fandène euh, ñu waxtaan wax xam mu gis li muy def ci Fandène ak ci département bi te moom mënu koo wax mënu koo def ñun xale yi ñu jug pour xool loolu. di saytu loolu di waxtaan ak suñu moroomu xale yi di xool jàngoro yi ak saa pour pour indil ko mu saafara ko loolu moo waral ñu jógee eh, kër daaw def fii passé ñëw tey fii kër Simbara waaw kàddu googu safara eh, saafara ak tawatu Fandène eh, war ngeen ko xam parce que dugguleen ngeen dem campagne wala di wax ak askan bi mën na ne tawatu commune Fandène war ngeen ko xam. waaw xam nga tawat tawat ci campagne wax naa ko léegi avant ngeen ñëw tawat ci campagne mënoo ko xam parce que da ngay ñëw ci campagne ñaar nit wala ñett nit jox leen. ñu taxañ ko mu dem mais nii nag bu ñu ñëwee ku ci nekk dañuy génn li nekk ci ñoom ñu waxtaan wax ne bu defee lii wala bu ñu defee ni nangam nangam yooyu génn loolu la ñuy tënk ci këyit nag egg jox ko kilifa gi kilifa gi xool naka lañu ciy doxee parce que ñoom li leen manqué mooy nit ñi di ñëw ci ñoom ndax politiciens dañoo tàmm buñ buñ buñ ñëwee ci élection bu jàllee ñu toog ñun nag ñu am doxalin bu bees ànd ko ak kilifa gi coordonnateur APR de Augustin Tine pour say dugg ci soxla si nit ñi. dugg ci nit ñi di waxtaan ak ñoom bokk ak ñoom day bokk ñoom bàyyi dugg di waxtaan ak ñoom loolu moo tax ñu ñëw fi tawatoon nañu courant kër Simbara daa mel ay solaire la seen fii de courant yi fii ak waaw loolu lépp loolu loolu lépp ci taal la bokk euh, li am kër Daouda mooy mooy tawatu kër Simbara mais yooyu yëpp incha allah teg nañ ko ci taabal teg ci kartanu yàlla balaay fan incha allah dinañ dinañ ci dinañ ci defe pexe waa taw di mooy courant ak ak ak ak comme ndox rek parce que moo moo mooy li ci ëpp ak xale yi seen terrain sport yi ak yu demee noonu te yooyu incha ñun suñu wàll la parce que ñun ñoo ko yor te yooyu bokkuloon ci yi nga xam ne bi ñëwee ci campagne joxoon nañu ko mais comme jot nañ ci nii incha allah dinañ def li ci war li ñu ci war bu soobee yàlla. am na laaj bu ñu actualité bi lan ngay wax yenn kilifa wala ñuy wuyoo kilifa ba pare ki ñuy jiital bu jëmee nii ñoom ñu jëm na waaw merci Babacar xam nga loolu day xaw a delluwaat ci ñàkk gëm parce que dama bëgg ñëpp ñu d'accord ci ni yàlla mooy joxe cër te ku mu jox cër doomu aadama mënu koo dindi Euh, kilifa gi ñu àndal muy le ministre Augustin Tine xajiwul ma sàmb xajiwul ma demba dafa boot ñëpp tey jii ki nga xam ne moo koy xas di ko di xuloog moom kooku la gën a tàll loxo pour ànd ak moom liggéey képp ku wéeru ci ginnaawam nag di xas kenn yow la neex mais Augustin Tine ma sàmb xasul ma demb ñëpp la tàll loxo pour ànd ak parce que li muy liggéey da koy liggéeyal son excellence président Macky Sall lu mu am moom la koy jox bëggul sax nga dem fenn ci dëkk di tudd tur naan Augustin Tine déedéet da nga naan tuddal président tax lu mu am moo ko jox keroog bi ñu fal ministre yi bi élection yi jeexee pour won la ni la yàlla mooy fal le ministre Augustin Tine bi ci ngoon gi dafa taal otom jëm Mbuur mi ngi ma romb stade la Dior may Sérène Match ci la dégg ci ci laa déglu rajo dégg nomination moom kon moom demul di xaari poste kon ñi nga xam ni le président moo fal coordinateur te fal ku mat a fal ndaxte doylu na boot na ñëpp ñi xa nañu nañu nañu def ndànk parce que élection ñëwagul. gis nga député bu ñu falee député nangam nangam déedéet nañu bàyyi ki président wóolu jox ko kooku jël ñi mu wóolu jox leen ñu ànd ñëpp bokk ndey bokk bàyyi mais kenn mënta fekk di naan Augustin day xajal nangam nangam déedéet Augustin ñëpp la bokk yilif ñii wax loolu daal dama leen di ñaan ngir yàlla na ñu bokk ndey bokk bàyyi toog parce que li ñu daloon ci élection locale yi ñii jëm fii ñi jëm fii bëggatuñu mu dal ñu élection yi wane nañu département bi ñun ñoo ko te loolu lañ bëgg a confirmer téye ko ci élection yi di ñëw ci kattanu yàlla. Ah, bu ñu delluwul ginnaaw ci seen jëf jooyu nan waa xam nga wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo ñun daal li ñu soxla ak le ministre Augustin Tine mooy képp kuy wax lu ñaaw nga bàyyi ko te ñu bokk ndey bokk bàyyi laxasu ci ginnaaw Augustin Tine mu jël lim am jox ko le président Macky Sall ñi ngi leen di wax daal ñu bàyyi wax ju ñaaw ji te bokk liggéey pour départ pour askan wi gis njariñ li loolu moo ñu tax jug. mu mel ni ñi nga xam ni ñoo leen doon xas bu yàgg ni leen yéen àndu leen benn yoon te euh, seen ànd sax euh, maanaam unité de façade lañ ko doon wax dafay mel ni dañuy bëgg am dëgg si yéen. waa xam nga dafa am ñu nga xam ni ne euh, ñooñu loolu mooy seen métier. fexe jaxase mais incha allah comme li ma la wax rek ñun ñu ngi ciy liggéey le ministre mi ngi ciy liggéey ba lépp tegawaat ci yoon lépp nekkaat benn xaste wu wuñu xuloo ñu ñëpp incha allah euh, noonu du ñu ree wax ji nag man naa bëri parce bu ñu déparé ñu jëm ci benn mbir ñun lan la ñu jëlee kii na xëcc fii kii xëcc fii mais li ki nga xam ne mooy coordonnateur mat na li mu doon te moo tax président teg ko fi dina boolewaat yilif ñëpp euh, tegaat leen ci yoon ci kattanu yàlla ñu ñu ma ci ma ciy préféré di sant wax dëgg yàlla Fallou Euh, le maire Fallou euh, Fallou Fall euh, Ndiayène Sirax ci gàmmam gi passé wax dëgg yàlla ñëw na ñëw gu rafet bu nga xam ni kilifa moo wax te kon ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm vraiment ñu ngi ñaan daal maire yëpp ñu bokk ndey bokk bàyyi laxas ci ginnaaw la coordinateur Augustin Tine ñu jël li ñu am jox la président Macky waa waaw waaw loolu su su su paree ma ma ma profité waale ci sa fédération Babacar parce que ñun dañu ànd defar Fandène te am na coalition bu nga xam ne mi ngi amoon ca ginnaaw xëy na local la woon ñu ne ànd dem defar Thiès ànd defar Thiès boobu ma lay wax ni ñoo ñëwoon ci élection yi passé nii di wax nit ñi naan leen bu wii góor jigéen moo fi nekk bu ngeen voté wii jigéen mooy yilif boroom këram bu ngeen voté wii sa suuf dañ koy nangu loolu lépp amut kon ñoom ànd boobu xëy na ñu ngi doxaat ci nit ñi di leen waxaat leneen na leen wóor ni loolu nekkut lañ waxoon lépp nekkut liñ wax moo nekk tey la boroom kër yi gën a gën a yirif soxnaam tey la baadoola moom suufam ba am ci sañ-sañ tey jii lépp lu ñu doon wax ñoom teg na fee ñun li ñu doon wax moo nekk kon na nit ñi xam li ñu bëgg may préféré dox ni ñun xale Fandène dañoo taxaw préféré Fandène ànd ak la maire Augustin Tine waxtuñu ministre la maire Augustin Tine dafa ñëw pour defar Fandène fan yi dañuy dañuy woo Santhioro Sadio war ngeen ko xam ñu dem Santhioro Sadio bi ñu egg see ñu ay plan plan yi ñuy jox mooy Santhiou Sadio bi ñu lotissé dañu leen defaral terrain sport pour xale yi mën a tàggetu ñu defaral leen poste de santé pour ku feebar bi mën a faju ñu defaral leen marché pour nit ñi comme dañoo sori ñu mën di fa jënd ak di jaay ah defaral leen itam ay cimetière ndax wax dëgg yàlla dëkk day am cimetière ñu wooñu pour ñu ñëw vérifier loolu bi ñu eggee fi bépp sip muy espace lépp lu mat doon dagg nañ ko ba def ko ay kër ñuy wax ni borom kër yooyu. nañu ñëw Fandène xam ne fi ñu dëkk na leen wóor ni askan wee ko moom te kenn nit nag du ñu jaral ñu yàqal askan wi yëpp fa ñu dëkk moomuñu ko te dinañ ko jël bu soobee Yàlla delloo ko askan wi nañ ñëw Fandène indi seen i képp ku dëkk Santhiou sa jëm côté boobu indil saw kayit booy tabax parce que commission mi ngi war ñu wut si autorisation autorisation boo ñëwee dañu xam ndax fii yaa ko moom wala moomoo ko mais Libertad lii di marché woo lii di euh, terrain sport na leen wóor ni fa ñu dëkk moomuñu ko kon képp ku dëkk sañ coro sañ boo mu déggee daw sil fanden nga indi saw kayit nga vérifié parce que lépp lu fa nekk lu nga xam nañu sax coow loo xam ne lii am na fa ba ñu mujjee ci li nga xam ne mooy gendarmerie euh, defe naa suba lañ leen ci woo ndax yëg ngeen loolu ak euh, jafe-jafe boobu la waaw yëg nañ ko waaye comme wax dëgg yàlla egseegul ci ñun Euh, carrément ni ñu ci war a war a war a war a duggee duggee guñ ci mais en tout cas li ñuy wax mooy mooy li ma leen wax ci commune Fandène bii commune Fandène daal nañ ñu dimbali ngir yàlla képp kuy tabax nga ñëw Fandène nga wut si autorisation parce que kayit yi jaxasoo dafa bëri espace yi tabax nañ ko te lépp incha allah dañ koy yëkkatiwaat joxaat ko askan wi wax dëgg yàlla bañ ñu kuñ ci mere ci loolu la maire Augustin Tine fi mu taxaw ak ñun parce que ñun dañoo jug pour liggéeyal askan wi bañu ñu kuñ ci mere parce que lépp lu askan wi moom dañ koy jël jox askan wi. loolu wax dëgg yàlla moom bañ koñ ci mel. ndax dafa am ñoo xam ne dañuy bañ maanaam seen liggéey ci domaine boobu. waaw ah kay ndaxte bu fekkee lu askan wi moom la nga jël ko tabax bu ñu la wutal autorisation ñëw lu wutal autorisation doo ñëw léegi yow lu ngay def parce que bëggoo ñëw loola feeñ te incha allah loolu dina feeñ xam nga marché ñëpp ko moom il faut ñu génne ko. mais ñooñu souvent dañuy wax na ay kilifa lay doon ak yooyu du ab euh, Babacar Ndaw surga boo xam ne moom am foofu xuusam bu mu dajale jënd ko. waaw merci Babacar ndaxte li li nga wax nii. Hmm. ci marché bi ay kilifa lañu convoqué gul parce que bi ñu jotee seen numéro ay kilifa ñoo ko moom mais nee naa la kilifa ak képp ku manti doon la maire Augustin Tine du ci faral ma sàmb du ci faral ma demb lépp dañu ko delloowaat askan wi kooku moom kilifa gu nekk na ko dégg parce que ñun man mi di wax ak yow woor naa ci kilifa la euh, Abdou Aziz Guèye mii taxaw yoroon commission bi woor na ay kilifa mais kilifa yi ak loo kilifa kilifa boo ñëwee askan ñu ñor la askan wi moom dañu ko jël joxaat ko askan wi kon na ñëpp bàyyi xel ni bu ëllëgee képp di ngeen di gàtt rajo yi ñuy wër a ah Augustin day xeex day nangam nangam mais xeexul dafa bëgg askan wi moom jël li ñu moom lii mooy wax ji. Aujourd'hui à Kër mbara toujours dans le cadre de nos activités de massification du parti APR également de rencontrer les populations pour s'enquérir de leurs problème et lorsque nous sommes venus à Kër Sembara aujourd'hui nous avons écouté les populations qui ont listé pas mal de doléances, pas mal de problèmes, à savoir euh, manque d'électricité, d'eau, de terrain de football, parce que le terrain que vous voyez n'est pas des meilleurs. Également, le manque d'emploi des jeunes et de, de structures de santé. Voilà donc les problèmes qui ont été listés par les populations de Kersimbara. donc aujourd'hui euh, les jeunes sous la houlette de Mame Gor Sylla nous nous sommes dit nous organisons ces, ces, débats au niveau de la commune de Fandène pour que aujourd'hui les élections futures les élections législatives et les élections présidentielles de 2019 pour que le président de la République Macky Sall puisse les remporter haut la main C'est pour ces raisons, c'est ça l'objectif, le but de notre tournée aujourd'hui. Pour, donc, euh, aller, euh, donc, pour atteindre cet objectif, il va falloir répondre aux doléances des populations. Qu'est-ce qui va euh, être fait Après chaque débat, nous listons les problèmes des populations et une fois avec le ministre, nous passons au peigne fin, nous les étudions pour apporter des solutions. incha allah avant 2017 ou bien 2019 le ministre Augustin Tine avec le président Macky Sall vont essayer d'apporter des solutions pour résoudre ces problèmes-là donc je pense que euh, ces problèmes seront de vieux de souvenirs parce que je pense que connaissant le ministre Augustin Tine qui aime Fandène parce que il a toujours dit il n'aimerait pas voir euh, à chaque fois des femmes Euh, puiser, euh, aller dans la brousse, puiser de l'eau au niveau des puits ou bien porter des bassines d'eau. Son seul souhait, c'est aujourd'hui forer des, des, forages au niveau de, de, de, de ces villages-là, amener l'électricité, créer des emplois pour ces jeunes-là. Moi, je pense que ces, ces, problèmes seront résolus bientôt. Par rapport à l'unité prônée, avec ces voix un peu discordantes soulevées par certains responsables, euh, qui... Euh, aurait soutenu l'idée d'un collectif remettant un peu en cause la suprématie, sinon la coordination assurée par le ministre Maire Augustin Tine. vous leur dites euh, Le ministre Augustin Tine, euh, c'est quel... un fédérateur. C'est quelqu'un qui a dirigé le parti euh, à Thiès depuis 2012, parce qu'il a été toujours le coordonnateur départemental. Et aujourd'hui, des fois s'élèvent de partout en disant que nous contestons euh, la suprématie ou bien le leadership de Augustin Tine. Et Augustin Tine n'a jamais demandé d'être coordonnateur. Il a été nommé par le président de la République Macky Sall. Et aujourd'hui, ces détracteurs euh, disent que Augustin, il n'est pas euh, en mesure de diriger Euh, le département de Thiès. Et il a montré ses preuves. Les élections passées, le référendum, c'est le département qui a remporté ces élections. Et c'est à cause de Augustin qu'on a eu cette victoire éclatante. Aujourd'hui, ce que je dis à ces détracteurs, c'est d'avoir la discipline de parti. Parce que le parti APR est tellement organisé que aujourd'hui, ils doivent être derrière le ministre Augustin Tine. Parce que sans l'unité, on ne peut pas gagner les élections futures. C'est un appel que je lance à ces là pour qu'ils puissent taire leur querelle, pour qu'on puisse gagner les élections de 2017 et 2019. C'est le souhait du président de la République, c'est le souhait d'Augustin Tine, c'est le souhait également des jeunes de Fanden qui prônent l'unité, l'union des cœurs et des esprits. Parce que lorsque, euh, euh lors, des de, lors du référendum, du 20 mars, il y a eu l'unité des cœurs et des esprits. C'est pour ces raisons qu'on a remporté ces élections-là. Je pense qu'aujourd'hui, ces responsables-là doivent taire ces querelles, enterrer la hache de guerre et essayer de continuer de massifier le parti. Moi, je pense que c'est mieux de se quereller. Mmh. Et ce que les gens n'ont pas enterré par contre, c'est la question de la terre. Euh, il semblerait que vous êtes incompris par les populations ou bien par ceux-là qui ont déjà au niveau de Fandé. Ok, donc euh, nous sommes passés de, de, de, de communauté rurale en commune par l'acte 3 de la décentralisation. Et lorsque le, le, le ministre Augustin Dine est venu, il a dit je vais essayer d'assainir d'abord. Parce que euh, l'équipe sortante a gaspillé tous les terres de Fandem. Et c'est pour cette raison que le ministre Augustin Dine, par sa démarche, il a dit je vais essayer de restaurer la vérité. Restaurer la vérité, c'est Rendre aux paysans leurs terres. Essayer de faire de cette sorte que tous les jeunes qui ont l'âge d'avoir une maison, pour que ces jeunes-là puissent avoir là où habiter. C'est pour cette raison qu'il y a une commission a été mise sur pied. Cette commission a pour rôle de vérifier d'abord, un, les espaces verts, de vérifier également les limites de Fandem. Parce que Fandem, comme vous le savez, ceinture pièce Et beaucoup de terres ont été expoliées comme ça, ont été vendues à tort et à, travers par, par des gens mal intentionnés qui sont omnibulés par leur intérêt personnel. Mm. Aujourd'hui, Augustin a dit que nous, nous ne sommes pas intéressés par cette terre, que cette terre-là puisse retourner euh, aux propriétaires, aux jeunes, aux femmes qui, qui veulent exploiter ces, ces, ces, ces terres-là. Euh, vous voulez dire qu'il qu y a un accaparement de la terre au niveau de Fandé Non, pas accaparement, euh, c'était l'équipe sortante qui, qui, qui, qui, expoliait cette terre-là, qui vendait cette terre comme, comme, des, comme de petits pains. Mais aujourd'hui, Augustin Tine a dit qu'il ne va plus vendre cette terre. Il va rendre cette terre au propriétaire. Il va essayer de faire de telle sorte que les jeunes qui ont l'âge de huit ans puissent habiter. Parce que, comme vous le savez, euh, il n'y a plus de terre à Fanden. parce que cette terre-là a été bazardée de tort à raison. Aujourd'hui, Augustin Tine a des problèmes pour euh, trouver des terres là où construire des, des, des postes de santé, des écoles, hein, des, avoir de football. Nous avons des problèmes, l'équipe municipale. Vous de Sintioro, il y a des occupants irréguliers. Qu'est-ce que vous euh, Nous leur disons, euh, s'ils ont des papiers administratifs, de se rendre à la mairie de Fandène discuter avec la commission domaniale commission chargée de de de vérifier ces terres de discuter avec ma également avec le maire parce que tous ces occupants c'est sûr qu'ils vont perdre ces ces ces terres qu'ils avaient achetées parce qu'ils l'ont acheté d'une manière illégale et je pense que ces terres-là appartiennent à Sinthiou Yoro Sadio qui qui était destiné à, à au terrain de football a construit une école au cimetière. Moi, je pense que ces, ces gens-là, euh, en général, ce sont, ce des, des, des, de, de, de, grands bonnets, mais c'est sûr qu'ils qu ont perdu ces terres qu'ils ont achetées. Euh, est-ce qu'il n'est pas temps que vous preniez votre bâton de pèlerin pour se rapprocher justement de ces personnes-là Parce que de plus en plus, la terre crée des querelles au niveau de la, communauté, euh, de, la commune de Fanden. À Foutagol, par exemple, des, des, gens se sont retrouvés à la gendarmerie et euh, donc euh, à cause d'une question de terre. Qu'est-ce que vous voulez dire Est-ce qu'il euh, n'est pas temps de prendre un bâton de pèlerin pour s'approcher des populations Aujourd'hui, comme vous le savez, la commune de Fanden est dirigé par le ministre Augustin Tite, mais il a responsabilisé tous les conseillers en créant des commissions. Ce sont ces commissions-là qui discutent avec ces populations, n'est-ce pas a des litiges fonciers, n'est-ce pas Donc des communiqués également ont été euh, passés à la radio pour informer à chaque fois quand il y a de besoins par rapport à ces litiges fonciers. Et aujourd'hui, cette commission est en train de faire un travail extraordinaire pour que ces, ces, ces terres-là puissent revenir aux ayants droit. Donc euh, c'est ça que j'avais à dire et je remercie tout le monde. Donc s'il n'y a pas d'autres questions par rapport... Euh, Merci. C'est bon. bien.